ñaari milliards ak genn wàll la Macky Sall fay le monde pour mu toog aji Sarr wax ñaari milliards ak genn wàll te Adama Gaye journaliste bu mag la du waxantu te lii mooy saaga ndey askanu Sénégal lép ndax jalousie cas de jalousie yi ñu am faju de dee bés bu ne enseignant yii di jooy hôpital yii di jooy Macky la mën a jël ñaari milliards ak genn wàll jox ko ay journalistes pour cinq minutes yi ñuy wax ak Adji Sarr lii mooy saaga ndey ak manque de respect bi gën a mag ci àddina Macky Sall def ko askanu Sénégal. tax su ma déggee fi ñu naan ay président dañ ko war a respecté njiit gi dañ ko war a respecté yow balaa ngay respecté nit ki nit ci sa alal ji nga xam ni yaaka moom mu jël ko di ko foye di ko sànni kooku respecté wu la. kilifa dafay mat kilifa kilifa day niru kilifa. kilifa du jël alalu njaboot gi di ko sànni ca mbedd ba ak di ko jox di ko def naka sudul noonu fa ko war a def la ko war a def su bëggee nit ñi respecté ko parce que bëgg naat dégg trop ñuy wax affaire respect fii wax dañ ko war a respecté ak mooy njiit ak kenn mënul fexe ba du loolu waxatuñ ko loolu dañ ko dépassé li ñuy wax mooy alalu askan wi fa mu ko war a dugal dugalu ko fa nit ñi di dee sénégalais yi sonn lépp ñu yokk ko dund beeg lépp ñu yokk ko mu jël ñaari milliards ak genn wàll jox di wax ak Macky euh, aji aji Sarr wax joo xam ne waxu naxasa xandang génn leen wax ci loolu balaa may dee ñu naan lii di preuve indi preuve Adama gay journaliste la ku xamul Adama gay nga dem nga gëstu nga laajte kan mooy Adama Gaye duy waxantu duy waxant te Sénégal ñun ñëpp ko bokk nit ki loo ko far far far far na nga xam ne yow sa alal ci boppam mi ngi koy kasaral di ko sànni ci mbalit mi foo xamee ni tey hôpital yi soxla nañ ko taalibe yi yalwaan ci mbedd mi soxla nañ ko enseignants yi di taxawal soxla nañ ko dund bi ñu yokk nii tey mënoon nañ ko waaj fi mu war a dugg ci senegal gépp dafa bari alal ji ñaari milliards ak genn wàll takkaay dund dina gën a metti nag balaa yàgg li doon jógee Ukraine yëpp tëj nañ seen bunt Mali tëj na buntam Sénégalais yi billahi wallahi yéen a ngi fi dund dana gën a metti dana metti lool ba jaaxal leen blé bi nga xam ne mi ngi doon jóge fale di ñëw dootu leen ko gis Mali bénéfice bi dem na lépp parce que musiba la ñu am ci biir Sénégal musiba ak balaa